mais ñun dañu nekk dañu nekk ci secteur boo xam ne dafa nekk secteur bu sensible ku nekk dégg na temps yëpp ay rumu am na ay grève ni ñi ñaa ngi yëngu mais am na loo xam ne ñun bu ñu toogee dañ ni woon xëñ na duñ ci egg parce que man xam naa nekkoon naa ci zone opérationnelle donc xam naa lan mooy jël vaccin bañ a vacciner xale mais comme dama yor doom am na loo xam ne ñun dañu ko def tey jii domaine yi nu nekk secteur yu sensible tey jii boo nekk ku nekk nga xam ne tey jii yéen a yor bloc yéen yor urgence yi nga ni dangay ngay boo grévé ñaari fan lu ñu fa indi urgence day dee moo tax chaque fois bu nuy buggee grève rek dañ koy waajaat dañ naan duñu grève wala duñu def leen mais ñu yaakaar ni ñu nekkal loolu respecté wuñ premier ministre waroon nañu négociation bi nu waxtaanee ñu commencé négociation mais bi ñu demee ba ci biir danu jël benn corps defal leen ay bo bon suñu syndicat yëpp nag am nañ corps yëpp ñun dañ koy rafetlu mais dañ ni kër gi benn rek nekku ci te tey jii médecin bi nga xam ne tey jii moom la ñu yokkal baax na gaa mais kooku nga yokkal pour mu liggéey liggéeyam am na ñeneen ñu nekk ci wetam ñu koy jàppale pour liggéey boobu mën a mën a mën a a sotti parce que médecin boobu bu ñëwee clinique rek lay def cest à bi day ñëw mu jël stéthoscope am xool ndax cœur bi na muy battre wala mu jël tension mais loolu du ko wax ban feebar moom la am malade bi yaram bi tàng na mu tax mu xam ban feebar la pour mu xam ko il mu bindal ko bulletin ñu ko demal ci laboratoire bi ñu jël sa deret xool ban feebar moo ci nekk mais kan moo koy def du médecin ba bind ordonnance kii ba ah wala nit ñu ne la damm da damm da am na damm damm wala tànk baa ngi mel ñu ne demal ñu def ko rajo kan mooy def rajo bi du médecin ba moo koy def wala tey jii ci domaine bi nga xam ne moom laa gën a miin parce que ci laa nekk man kinésithérapeute la nga am malaat boo xam ne dafa am accident vasculaire cérébral bëri na ci dëkk bi ñu naan AVC mais kooku neurologue bi la bu weesoo malaat mu yeewu amatul leneen lu mu koy defal man maay téye malade boobu pendant ñeenti weer wala juróomi weer. di ko dikkee ba malaat boobu mën a retrouver waat saa fonctionnalité mais ñooñu ñëpp nag boo toogee nga ne ñooñu amuñu solo wala infirmier bi nga xam ne tey jii am na ñoo xam ne judd nañ ba am bag ba dem université mosuñu gis médecin infirmier lañ daan gis wala sage-femme sage-femme ba moo leen di vacciner sage-femme moo leen di faj infirmier ba moo leen di faj moo leen di faj mais ñooñu ñëpp nga jël leen ngeen teg leen fee bokkuñu système bi chaque année ngay jël ay nit leen yokkal gaa baax na di yokk yokk yokk ba mu ba mu toll foo xam ne nga ne ñeneen ñi daal leen faale non boo déggee ñu ne la cadre unitaire de syndicats de la santé pour la justice sociale moo justice sociale boobu xaj ak seen i ñun nag ba ñuy xeex tey ji dañ nekk ci cadre mondial mais ñu dañ ni lay am Europe am ko ci yenn pays africain yi ci mbirum santé nañu traité Corée nan ñu ko traité ñun dañ nekk Afrique de l'Ouest ñu am lu ñuy wax OAS Bénin bokk ci Togo bokk ci euh, Mali bokk ci ñooñu seen corps yi ñu nekk nii ñuy wax lan ñu war a doon reclassé nañ leen Sénégal. pour rek mu accepter signer décret bi il fali fallu que ñooñu forcer leen ko bi leen ko forcer ñaari décret yëpp signé nañ ko concernant infirmier ak technicien supérieur benn bi 2012 la woon ba tey 2012 ak léegi ñaata at la ñu ne duñ ko appliqué bëgguñu rek réduire à à leen tey ji da ngay am sax problème parce que tey ji danga ci gis koo xam ni am na niveau bac cinq war a dem def troisième cycle am mu demandé bind benn université bu nekk Canada mu war a dem jàngi mais ñooñu bu nu bu nu bu nu xoolee référence yi nekk fii. du mën a inscrire te dafa bloqué ñu bëri ñu am suñu yeneen collègues yu nekk ay Niger di dem di am di am facilité te ñun mënuñu ko am loolu day poser problème moo tax ñu ne am nañ décret yuñ signé nañ ko appliqué leneen li indemnité de logement mënoo concevoir que ñun ñu nekk santé sante rek ngay toog guddi ba deux heures di matin ñu wol téléphone la jógal am na urgence nga nga sol sa yére paren saay sax sa dàll sax carax ngay sol daw pour ñëw nga ni mënul am intervention ñu jox ko police jox ko gendarmerie jox ko enseignant jox ko ñeneen new ñu mérité wuñ ko mais nañ ko mën a jox ñu ne risque risque jox nañ ko ay corps militaire wala paramilitaire am na ci sax bu yoo xam ne egg na ba cent cinquante mille francs te kooku tey ji boppam arme la yor ça veut dire que tey jii bu dee samba booy ñëw na bëgg koo gaañ am na armam pour rey ko mais man tey ji bu nit amee Ebola man xaw ma sax ndax am na Ebola bu nee malade rek dama koy jël. bu nit amee sida mënuma xam ndax am na sida te pourtant dama koy injecté ak lépp ak yeneen i feebar yoo xam ne bëri nañ am na agent de santé yoo xam ne tey jii la leen dal ci biir métier bi lañ ko amee ku ëpp risque kooku ki nga xam ni sa ennemi gisuloo ko bokk la ki nga xam ne sax ki lay ki lay ki lay gis nga ko mais loolu lépp am ci système bi ba pare ñu bëgg toog rek bëgg yaakaar ne benn corps rek fi nekk ñeneen nekku fi ñun nag il faut que ñu xam parce que ñun ñoo toogoo ñu ne duñu grève parce que fi ñu nekk moo sensible xam nga nekk labo ñu war a analyser nga diagnostic boo grévé musiba dina am kenn nekk anesthésiste wala ne rawal malade boo grévé musiba dina comme ñun dañoo toogoon ñu ne ah ñun de ñu def lenn parce que bëgguñu bëgguñu yenn conditions yi ba tax respecté wuñu mais ñëwan la ñun ñooy kan loolu moo indi problème mais xeex bi fu mu mën a egg rek nañ fa egg.